nous avons l'intention de briguer la mairie de Mbacké parce qu'on constate un ensauvagement de la ville qui ne dit pas son nom. La ville est cantinisée à outrance. Il y a une spoliation des terres, de l'injustice sociale. Et tout ça, ce sont des questions qui doivent être réglées. Vous prenez l'insalubrité, la ville de Mbacké n'a plus même de véhicules de ramassage de poubelles. Les ménages mbackois ont une triple dépense. ils payent leur facture de d'eau d'eau d'eau de robinet ils payent leur facture pour boire de l'eau potable et ensuite ils payent également des factures pour faire ramasser leurs ordures par des charretiers c'est trop ça pèse sur une population qui est déjà assez pauvre comme ça donc tous ces problèmes doivent être réglés quand on prend l'hôpital le dispensaire de Mbacké parce que ce n'est pas un hôpital du tout tout manque dans ce dispensaire on a l'impression qu'il n'existe pas de de gestion dans lequel la mairie participe pour trouver des solutions. Donc c'est autant de questions qui doivent être réglées, autant de difficultés, autant de, de, de malheurs qui, qui, doivent être réglés. Et nous avons un programme qui est le programme Gumsobop, dans lequel il y a une grande part réservée au développement territorial, que nous avons envie de dé déployer, évidemment, avec les populations bakoises, parce que c'est un développement inclusif, un développement participatif, parce qu'il ne sera pas question euh, d'amener des solutions qui nous tombent du ciel. Il va falloir une grande concertation entre les populations de la ville pour que ensemble nous puissions trouver une solution qui soit une solution durable. di sant peuple bi ñëw naa tey déposé li nga xamante ne mooy ki nga xamante ni mooy liste yi bi nu war a demee conseil départemental mu di grand une grande coalition laa ko sax mu nekk si bokk gis-gis ànd ak coalition ak ay parti yu am solo ma ànd ak honorable député ki ne ma nga xamante ni candidat la si commune bi ak le maire sortant Abdou Mbacké Ndaw ànd ak fàllu mi nga xamante ni mooy gindi askan bi ànd ak Lamine bi nga xamante ni moo moo toogal parti socialiste à Touba ak. LD Yeesal ak AFP à Touba ak Manko Manko mu di ay parti yu bari yoo xamante ni tey ñu ngi si ginnaaw bokk gis-gis ngir ñu ànd demoon élection ak ñeneen ñi nga xamante ni war nañu ñëw lii nag dafay nekk premier étape ci li nga xamante ni maanaam mooy li ñu code électoral bi sant. mooy képp koo xamante ni maanaam tey mi nu jotee déposé woo déetoo bokk si élection yi teel nañoo liggéey teel nañoo matal ñëw nañ si l'heure ñoo nekk deuxième position déposé nañu jox nañ suñu récépissé di wax rek li nga xamante ni fa la ñu jëm muy élection dafa am solo muy gox goxaan gox goxaan nag kenn ku nekk maanaam ka jiite loolu wala nga nekk sa. askan ba nga xam ne ñoom nga nekk ñooy xam la nga leen jariñ yow mi nekk si gox bi est-ce que jaral na ñu dénk la gox bi wala ñu bañ laa dénk gox bi kon ñun ñu ngi sant ñëpp tàll tàllaloo xam defoon nañu fi bi ñu falee à 2017 ba fi may wax a yow soxla na 2022 jëm 2024 pour àggale li nga xam mooy li fi tàmbali woon li fi nekkut te war fee nekk ñu def ko fi ànd ko équipe boo xamante ni équipe la boo xamante ni équipe gagnante la ndax tey ñi ñu àndal yaakaar naa ni c'est une équipe gagnante Cheikh Abdou Bara Dolly Abdou Mbacké Ndaw Kinda Ndaw Gindi Parti socialiste vraiment c'était le meilleur coalition dans le département ñoo tax dem ba léegi nii gars yi dañoo tiit mais nag euh, dañ xam ni daal le 23 janvier soreetul te ñun pare mais leen tiit bari na ndax xam nga grand coalition bu toll nii ak ñaari tête leader yi fi am ni musu am yéen def leen xool leen coalition yi fi nekk ñun duñ fi la yam la yam ñun dañuy ñëw wax ak askan wi jël li fi nekk dem à la 3 heures balaa 3 heures danañu gañ commune Mbacké dañu gañ département bi te lii maa leen ko wax. maire mi ngi ñëw xam nga ko ne xam na ni kenn ku ne da nga nekkoon fenn di liggéey ñun ñu ngi woon si département bi liggéey moom mi ngi commune di liggéey ànd ko ñoom soxna ki ne mi ngi ñëw pour déposer xam nga déposer liste dafay nekk loo xamante ni dafa jafe surtout nga nekk nag si milieu boo xamante ni ñoo ngi ko seqal dafa bari tey tamit yàqab ko jërul ndax aw askan boo leen waree nekkal doo profitoo ngir benn intérêt ngir nga gaaw bëgg déposé loolu yaakaar naa du lu am yoon moo tax que mu jox ko temps bi mu ko war a jox ànd ko ñu mu ko war a àndal léegi nii bi ma ko woowee bi ma nekk bureau préfet départ na mi ngi ñëw pour déposer commune bi ci turu bokk gis-gis nga xamante ni tey moom la ñu tànn ngir bu ñu si àggee le 23 di ñaan population bu Mbàkke ñu wote leen ak kenn mbay Mbaye Abdou Mbàkke Ndaw ak commune Cheikh Abdou Bara Dolly département Sèvres li ma yëg mooy def nañ li ñu waroon def euh, dem nañ seet ñëpp ñu war a waxtaanal defar liste boo xam ne euh, ñëpp ci gis seen bopp muy kilifa diine yi muy ouvrier yi ñëpp ñu defar suñu liste boo xam ne yaakaar nañu incha allah élection yi ñëw ñu nañ ko gañ ci ci jàmm ak salaam <coughs> loolu loolu lañ am lu ñuy def def nañ ko te incha yaakaar naa ne bu génnee moom mooy liste bi nga xam ne mooy liste bi gën ci liste yi te liste bi nga xam ni mooy permettre boo Bokk Yaakaar mën a gañe pour la première fois élection yi man yi ñuy yi nekk suñu contestation mun ta ñàkk contestation moom danga nga naan nit ki amul mérite wala nit ki maîtrise wul politique wala nit ku di jàmbaar mais pour l'instant man du ma tontu ci euh, ci ay contestation objet benn objectif la am mooy que ne euh, am victoire ci élection yi ñu jëm ak ñi ma àndal ak coalition bi loolu moom ma waaye contestation man amul lu ma ci parce que damay tardeel dañu ñëwoon euh, def benn parti boo xamante ni dafa bokk ci processus élection yi mooy que ni nga dajale say kayit ñëw wan ko kilifa gi organiser élection yi muy monsieur le préfet mu xool ko gis ni euh, say kayit man na wala matul donc ñun bi ñu ñëwee mu apprécier suñu kayit gis na ni mat na donc mu defal ñu récépissé donc récépissé boobu noonu euh, bu ñu ko amee dañuy peut-être permettre ñu continuer euh, pour dem ci élection yi. PDS dafa nekk partie boo xamante nii dafa nekk ci xolu Touba. loolu jàpp naa ni euh, kilifa gi moom PDS kilifa gi nekk PDS donc moom moo ko fi ji et muy loo xamante ni nii donc euh, population bi nga xamante ni ñoo nekk si diggante Touba Mbacké ñoo ko koy delloo loolu nag euh, ñun dañ ci sant yàlla biñ bokkee ci biir PDS mais li ma ci bëgg a wax mooy PDS parti la bu mag parti boo xamante ni nii fii am na fi encrage e que c'est pas parce que la personne moo ko incarné que voilà à chaque fois que peut-être euh, euh voilà qui peut se réclamer la victoire <coughs> c'est li am te li wér te wóor mooy parti bi moom ku ñëw fi nga koy fekk ku dem fi nga koy bàyyi. PDS dafa nekk parti boo xamante ne nii dafa structurer te am na fi doole mais doole jooju nekkul nit ñi ñoo koy incarné boo fi duggee. da ngay mel ni ku ko am mais boo génnee rek doola jot dootu la topp loolu noonu mooy indi donc des fois nit yàgg ci biir ba ak foog ni am na fa dara mais bis bu demee rek dara du ko topp exemple yi bëri na bu ñu ko doon euh, lim duñ fi jóge waaye jàpp naa ni li may wax rek doole PDS donc ñun suñu obligation mooy euh, jéem a def le maximum possible pour que ñu gën a euh, ñoŋal PDS fii si département bi loolu rek mooy suñu yéene et ñu defar département bi bu ci suñu borom bi àndee yàlla na nekk lu gën si ñun. waaw suñu xel dal na sant yàlla donc comme que jàll nañ ci étape bi ñu war a duggaat ci étape yi si tege donc ñuy ñaan yàlla mu may ñu ndam et puis muy mu jàmm ak salaam di ndam loo xamante ni moo gën ci askan wi bu gënee si ñun gën si ñëpp yàlla na ko suñu borom bi def incha allah. man la Abdou Lahad Lo candidat coalition mouvement Iba Ba Tey dëkk Mbacké quartier Mbacké Mouride. li tax mouvement ba taxawal lis mooy ñun dañu nekk famille Iba Gueye Iba famille am mën naa ne ñëpp politique politiciens yi ay dëkkam ay mbokkam ay sympathisants ñëpp ay ay ay ñoom manko gis ni vraiment euh, ki ñu jëmmalee mouvement bi ba tax ñu ànd ak UCS pour dem ci élection locale yi nit la koo xam ne dafa def Mbacké loo xam ne vraiment dañ ci am lu ñu ci seetlu loo xam ne vraiment niñ yaakaar ne noonu lañ ko war a toppatoo toppatoo wuñ ko loolu moo ñu motiver muy parent muy sympathisant muy ami lépp ñu toog waxtaan ci créer mouvement bi pour relever ce défi là fexe delloo si li fi nekkoon. parce que Iba vraiment dëkk bi mën nañ fi mu ko fi mu ko bàyyi ak léegi vraiment ku xamoon fi ko Iba bàyyi ak fi mu toll nii vraiment am nga lu la metti nañ lu ñu metti trop loolu moo ñu motiver à ce ñu ñëwaat pour delloo si loolu. dinaa jox ay exemple exemple bi ma la jox mooy. Elmodou dëkk bi tali yi yëpp yàqu na mun non seulement waxuma yàquwaay bi mais tali yi dafa sëkk suuf ba fees tali bi nga xam ne moo gën a garaaw moo ñu gën a metti mooy tali bi jaaru tribunal continuer jëm kër jëm kër saafal tali boobu Iba defaroon na ko ba mu baax malgré da doon am ndox nit ñi dafa jaar mais non seulement tali bi dafa yàqu ñu toj ko jël ay a sëkkee ko ko loolu dafa ñaaw nawetu ren bi kuy wax xam ne foofu kenn mun fa woon jaar benn ngi noonu beneen bi tali bi nga xam ne moo jaar buntu këram continuer dem tali boobu Iba defoon na ci 400 millions tali boobu noonu mu ngi yàqu toppatoo wuñ ko pour ñu bale ko c'est tout un problème tali bi yàqu na beneen bi ci gën a grave mooy lamp yi nekkoon ci dëkk bi Iba def ko ci nga xam ne làmp yi dem na fu nekk effectivement am na ay lamp yu fi ñëwaat mais lamp yooyu ñu dindee foofu mais am na ci dëkk bi fu bari fu amul ay làmp lan moo tax lamp yooyu jëluñu ko ñu yóbbu ko feneen gisuñu làmp yooyu xamuñu fu mu dem te am na ba léegi nii extension yi ci dëkk bi yu bari yoo xam ne amul ay lamp beneen bi mooy tali bi jaar Daaru Salaam même chose tali bi nga xam ne moo jugee raay ba jaar gaar bi continuer wër dëkk bi jaar Mbàkke Xewar jaar Ndoyeen jaar gaawaan dellusiwaat soo demee ba gaawaan parce que courant ba sa yaram day daw mënutoo fi jaar donc ñu seetlu nii vraiment dëkk bi bën na ay yàqu-yàqu yoo xam ne ñun métti nañu ba nga xam ne ni vraiment loolu moo ñu tax a jóg mobiliser bu tey pour récupérer waat maire bi dañuy ñëw pour jël ko ah pour récupérer waat maire bi delloo li fi bëggee defoon parce que i bëggee tey bu ko je suis arrivé vers minuit, minuit 2, minuit 3 et il s'est trouvé que les forces de l'ordre sont devant les, la porte, bien le portail, ah, pour euh, interdire, euh, par exemple, toute entrée extérieure. Voilà. Ah. Pourtant, je suis le candidat de Andy Djefal gox et j'ai tous les papiers euh, tous les documents euh, qui nous permettraient, par exemple, de présenter notre candidature sont, sont, sont prêts. Mais malheureusement, nous sommes ici. Euh, je suis navré de ce qui se passe parce que je croyais que les dépôts euh, euh, s'arrêteraient, par exemple, à partir de minuit. Ah, pourtant, j'ai vu les gens, par exemple, attendre euh, pour déposer leur, leur, leur dossier. Alors, ah, moi, je suis dehors ah, et pourtant, il est, il minuit, mais on continue les dépôts, mais je ne peux pas entrer à l'intérieur de, de, la préfecture. Ah, bien sûr, nous allons le faire, mais je ne sais pas qu'est-ce qui va se, passer. Quoi. Mm-hmm.